su fekkoon ne waxoon na dara yow yàlla dimbale ma sonn naa kon ñu weer ko noonam yi jàng arab weer ko dëgg la wala déet su fekkoon ne wéet naa ak ñoom def euh, protocole rëbës dégg naa ko waaye bu maayombeek nangam kenn dégg ko parce que amut bañ ko jaaralee fañ ko jaaralee yëpp mu reste toujours lii même bay tàggu boromam boromam naan ko ijal rujuuci allahu akbar ila qawmi saadatana mhm. wal takfina yowma jamci alxalqi niiraana lenn moo ci ne ijal rujuu yow yàlla ijal ordre la ak impératif mhm. haute grammaire bi bi sëñ Tuubaa di waxee lu jafe la ijal mooy defal su fekkee ne nit ak nit su fekkee ne dafa jóge ci suuf jëm ci kaw subjonctif lay transformé wu comme ihdina doo wax jubal ma rabbana atina doo wax jox ma naa doo ko wax xoolal li mu koy jëfandikoo haute grammaire bi may waxee la laa leen di wax de te kii wax mu ngi spécialisé ci balaaga mooy bayaan ak nu ñu koy waxee maani ñaar ñoo ñooy balaaga mu ne yow yàlla nga def eh, eh, su ma su ma dellu saadata hum maanaam modestie moo tax mu ne saadataa ma mu ne yow yàlla suma coono biñ ma teg ndax ma mooy la ma bañ ndax ma nàngam yàlla nga ko defal Sénégal muy seen seen bonheur ma ne incontestable ñibbi si sëñ Touba nekk sëñ Touba bonheur la pour le Sénégal ku ko nangoo ku ko nangu bu jaadu woon sax indépendance ñu ne ñibbi fii moom mooy indépendance man loolu laa gëm ijaal rujuu yi dégg leen ko bu baax mhm. ilaa qawmi ilaa qawmi la wax mhm. waxut ilaa murid yi waxut ilaa atbaa yi wala nangam ilaa kaw mi kon la ma waxoon sëñ Sidi Baxtaar rek doomam yëpp maa ngi leen di nuyu ci sëñ Moustapha may taaw ba fa ca ko benn waaye dama xanaa Touba ñi kii ñëpp nga xam ma ne ko ñëpp ma mhm. xam ma xam leen mbubb moo gis ma sol ñoom ñoo ko defal ba mu rafet ñu yónnee ma ko te nag bu ma ko wax maa leen xaw ma laaya ji ma waxoon <laughs> waaw déedéet laaya laaya laa wax waaw waaw ilaa qawmi saadatan ma maanaam bonheuram ñaareel bi àllama naa ra àllama rahmaanu ji doon wax suma mbokk mu baax mii doon ko wax xam nga euh, sëñ Tuba daa amul morom fa parce que lépp ma baax man ay jàng yi tiijaan dañ may invité ak lu ne may wax am naa technique de communication nekkatoo sëriñ bi dafa fiir yàlla dimbalawu ko léegi ba may wax rek mu naan ma nii montor bi <laughs> mel mel mel de sëñ bi Jóob naan nii montor bi lu matul quinze minutes ma am fi lu mat trois cent mille mu naan yéen ña seen ñi day seen xërëm yéeg seen nangam yéeg <laughs> seen nangam yéeg yooyu léegi nag ma ne allamani rahmaanu fi safina na ngeen ma déglu bu baax te xam naa ne bala ma àgg Kawlax wala bu subaa ñu naan ma li nga wax war a koo wax mais man waxuma lu ma warta man jàngalekat laa ki mérité woo dix-neuf laa koy jox dëgg la ki mérité woo trois trois laa koy jox Cheikhul Khadim su ma dégg-dégg mooy bi mu nekkee ci gaal gi ci coono bi lañ ko signeel benn décret ne ko yow yaay xaadimu rasulillah annoncé ko mu ne allamani xoolal mu utilisé baatub rahman waxul allamani laahu est ce que yéen a ngi dégg cest ni muy tànnee baat yi dafa yéemu jëlul ismu zaat yi ah ma ne jëlul ismu zaat yi rahman yërmande yàlla bi mu koy yëgee mu ne ko allamani rahmaanu fii safina ca booba maa ngi ci biir gaal gi bi na annani xadimu dil madina nome nañ ma rasulullah nome nañ ma décret xaadimu rasul ma ne foo bindoon lettre xaadimu rasul comme mën a doon fu mu dem ñu ne dañoo juum te ñëpp a ngi naan xaadimu rasul lañ sëñ am ni dégg nga maa bu baax a baax a baax waaw parce que bosam décret officiel ñu ne ko annoncé ko mooy àllamani mu teg ca rahmaanu cest à benn waaye benn entrepreneur nee na ma birig bi ci birig bi ci gën tabax da jël birig entier birig birig birig birig birig nga ñëw ba ci ko ba ci xaju bi nga toj ko defeen beneen birig bu sëñ Tuubaa nag doo ci gis benn manqué kii li li ma yoo xam ne ko am na waaye woo xam ne dafa am lu muy yi te maanaam yi jeex na nga àggali ko ci leneen moom fi muy commencé foofu lay àggee ku ñuy wax docteur euh, Jim Darame moo yor IFAN daf ne ma dangaa waroon a bind ci sa baay ma ne ko bu ma man daf may gêné man mënumaa bind ci sama baay te du ma bind ci sëñ Touba mënumaa bind ci sama baay te du ma bind ci Cheikhul Hadji Malick ndax li sama baay wax mais li mu wax ci sëñ Touba surtout ki ko wax surtout ki ko wax mm-hmm. waaw ñaareel ñaareel bi mooy wajal qulubana ala tawaddudi gis nga ni muy tànnee bari waxu waxut wajal qulubana ala tahabubi pourtant bu ko waxoon mu am mu mais nag mawadda xam nga la yàlla wax moom mu jël wa rahma son relatif mm-hmm. mawadda ak rahma mm-hmm. yàlla ne wajaala baynakum mawadda wa rahma moom it ijaal eh, wajal quluubana wajal quluuba moo tax tendance ak bañanteeg siis ak nit ñi def maag Ahmedu amut Tuuba amut sa sëtu sëñ Tuuba xam nga li ko def wajal quluubana ala tawaadudi ñëpp soppante ñëpp a ko gis ñëpp a soppante ñëpp a bëggante danaa wax nag loo xam ne mooy maa ngi nuyu waa kër sëñ Abdul Ahad mooy lii problème bi amoon ñu defoon commission man dama ne jaru ko woon mësul am Touba était toujours solution man nekk naa conseiller président Abdou Diouf mhm. pendant vingt ans mhm. mu am mhm. problème ci jàngalekat yi quatre-vingt-huit Abdou Diouf ne ma li may tiit bëriwut waaye tiit naa quelle est la solution ma ne ko il faut aller à Touba gannaaw ko dee ñu yóbbu Touba ku sa na ne nangam nangam yaakaar nga dem nga Touba. Hmm. man day c'est la solution mu ubbil ma bunt bi. ma dem gisu sëñ Abdoulaye njëkk loolu nag Nasirou Touré daana fa yóbbu xamanteem ñu xamante. Hmm. sëñ Niassène ma ne Mbàkke lu doon tànk yi sa doom jéem a yónni kana Abdou Diouf mu ne lan affaire geraw bi mu noonu dërr laa ci xamul dërr laa ci xamul. ndeysaan. <laughs> ma ne ko dafa am ku ñuy wax Iba Ndiaye Ndiaye ji. Mhm. maak moom ñoo nekkoon école normale supérieure te moo ko jiite mu ekkati téléphone bu weex ba teg ko ne ma téléphoneel ba suba. Mhm. ma composé. monsieur Ndiaye wooy ma ne ko ne pas avec le khalife général de Mouride bu amoon kii ci lay dee lu ma def nangam nangam salaamaaleykum man la Abdoulaye Mbacke bëgguma xam kuy sëb sëri kuy sëb sëri bëgguma xam foo bokk. it daf ko freiné ba lii ma kii daf fi ñëw di kilifa di gone. Ah, ah, waaye ba fi ñëpp ñëw ci man kilifa yónni ko yaakaar ji yaakaar ci man yaakaar joojee moom laa yaakaar ci yow waay ne kap ndeysaan ko xam suñu abdoulaye xam nga xam nga xam dëgg la waaye yowaat ne ko jox ma arab yi mhm. mu ne ko bu ma la ko mayee kon dafay mel ni mhm. dañ maa oo pale jox may xaalis leen la may defee mhm. onze régions yi boobu onze la woon ñëpp ñoo fi daje balaa nanga mu daal di commencé Saliou Touré danaa ñu fi ñëw buy fukk buy ñaar fexeel bañ jos ci man kap ndeysaan noonu la ko defee ba ñépp ñëw ndeysaan ma ñëw ne ko Mbàkke gan ñi ñëw nañ mais nga ji leen defal ci xaraka nangam mbayeen yi ak sàmbeen yi dégg nga ñu dem a dem ba ci kanam mu jël enveloppe bu at mooma dix mil yi dañoo xonq mu jël enveloppe yi benn bu ne mu def ca cent mille boole ak sëñ Modou Mamoun Ñang yaakaar naa noonu moo doon sëñ Modou Mamoun Ñang secrétaire xaw mi ngi du nëb déet ngi waaw sëñ Modou Mamoun Ñang ñu dem jox leen enveloppe yi mu ne na ñëw bañ ñëwee ñu daal di commencé naan waa sëñ sëñ sëñ Abdoulaye waxu dara ñoom ñoo wax ne d'accord nañ ci teraanga ji ma téléphone président Abdou Diouf ci ci fajar mu wax ne nañ jël rajo Sénégal def ko ci téléphone sëñ euh, sëñ Abdoulahat ñu naan compte tenu de nangam compte nàngam de nangam compte maanaam gerew bi dañ na fee à dakaar te booba ma nga Touba Abdou Diouf ne ma ku def lu rëy am lu rëy demal ci sëñ Abdou Lahad nga ne ko nañ dafa bëgg ñu décorer ko waaye man ñi ma koo décorer ndax laaj naa gouverneur Cissé bi ci Jurbel eh, mu ne sëñ Abdou Lahad n'a jamais été décoré mm-hmm. bu buggee gouvernement bi yépp ñëw tuubaa wala bu ko neexee mu ñëw mu ñëw Dakar ñu barkeelu ci. Mhm. man nag ma foog ne maa rey pël bi. Mhm. ñëw sëñ ñu Mbakke lan la woon. Mhm. sa doom jéem mu yónni kan la Abdou Diouf mu ne lan mun ne dafa laa bëgg a décorer mu ne ma luy décorer. ndeysaan <laughs> ndeke ma ne ko mooy médaille mu ne médaille bi ma teree nelaw xamu ko mooy dee kottu dem aljanna. ma ne ko addurru wa nafu min arrahmani laysa minal bidaani wa suudaani mbàkkee naxewoo yoon wi naxewut mu ne wekket montre bi bi mu takk suñ na seen am waa ji ne ki ma ànd na mais noppi sëñ bi daawul bu ñu dañuy dee rek ndeysaan ndeysaan ndeysaan waaw waaw loolu moo tax li ma doon wax booba ci jamono 88 bi mu ñëwee itam ñu xaw koo kii mais sëñ Mountakha mooy solution bi Touba et la solution loolu suma wax la ma gëm ko compte tenu suma expérience liggéey ak état pendant vingt ans ndeysaan ndeysaan ndeysaan kon loolu laa ci bëgg bëgg nañ koy waxati mais daal ndeysaan ñaareel ba mooy mhm. sëñ Mountakha mhm. dafa dafa dafa sowee l'islaamu Sénégal mhm. parce que yaakaaroon nañ ne daal ab sëriñ daal day yalwaan rek. dëgg la waaw moo tax ngay dégg ñenn ñi naan joxu leen ma ceeb ba. ba may gàmm joxu leen ma ko joxu leen ma <laughs> alkaati ba. ay yow yaa wala naa nga naan mais moom mu defal ñëpp remplacer ñëpp. sans tambour ni trompet ndeysaan kon ijaal rujuuxi. ilaa qawmi ilaa qawmi saadatana. wal takfina yawma jamil xalqi niiraana xam nga boo xam nga loolu bokku ji de. waaw kuy kuy kuy ommat doo kii mu ne wal takfina wal takfihim mais lu tax mu ne ijar ila qawmi na lu tax mu ne wal tag fi naa parce que bu ñaanee yàlla boo boole ko ci bu ànd ca yàlla def koy ruus wa man laahu muazibuhum wa anta fihim dëgg la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf eh, day mel ni li alxuraan wax rek xu anfusakum wa ahlikum naar waaw moom foofu rek la moom fa la taxaw woon ndax eh, waaye jërëjëf yàlla la yàlla may wér yàlla na yàlla guddal saw fan yal na yàlla may la nga eggale amiin amiin ndem si yàlla sere Cheikh Ahmad Bachir Kunta waaw daf ma mas ñuy waxtaan ci téléphone mu am yu bari yu may nettali ci yoon wi mhm. mu ne ma góorgóorlul ci liggéeyal sëñ Tuubaa mhm. ma ne ko ah, mu ne ma fii ma toll nii ma ne ko ah, mu ne ma xanaa li ma jàll waaye li ci sama kanam mbaaxook sëriñ bi lay yëkkati te du woon ab jaahil yàlla dolli ay leeram waaye yow mhm. ak sëriñ Ahmad Khalifa référence ngeen lépp lu dajjim ngir lu ne am ngir rek nga fay teg mm-hmm. te it yàlla bokk na ci li may yërlu muy xol bu sell mm-hmm, mm-hmm. te li sëñ Tuubaa waxoon ne sama zaahir ak sama baatin yàlla da koo sellal amul faute zéro faute la tey li may wax ne bu yowmal xiyaamee ku ne mën ngaa taxaw waaye moom day yëkkati loo xam ne tooñu ma kenn kenn mësul dégg ñu ne sama dëkku maam bi sëñ Tuubaa ko ñëw raatale ñëw nangu dëkk ba dëkk fa déedéet da lay daan ay kilomètres sànc ko te lu mu baax la jox la ko moo tax euh, yàlla na yàlla fayal Cheikhul Khadim bu ko amuloon xamuñu fu ñu jëm waaye ñes jërëjëf noo ngi bég bu baax tey nag li gën neex ci sa ñëw nga ànd ak sa njaboot ñëw loolu lu neex la mm. euh, maa ngi jot léegi sëñ Xalifa muy wax ne xam naa wéef bi moom mi ngi dox kon numérom mooy 321 18 99 loolu mooy numéro sëñ Arabi Niass sëñ Xaban euh, dafa am mbokk yi sëñ Jibril Ndaw muy message di wax ne dafa mbokk yu bari yoo xam ne dañu soxla sa numéro yaa xayra dayfin ataa بالبشر والمداد